suñu ñëw fii euh, dafa nekk pour waxtaan ak investisseur yi ndax exposition universelle buñ ko waxee dëgg la ku nekk da ngay wane li nga gën a def pour yokk euh, bien-être euh, le progrès mondial donc ñëw wane nañu li Sénégal def waaye tamit dañoo bëgg ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay investisseur nga mën leen a fekk fii ñu mën a intéressé wu ci Sénégal donc am na loo xamante ne def na liggéey bu ñu def pour mu am ay rencontre YouTube bi mais dañ ko bëggoon a jiital ci euh, benn ay panel pour won investisseurs yi lan la Sénégal di def lan mooy politique yi fa nekk bu ko defee balaa ñuy waxtaan dinañu xam bu baax lan mooy Sénégal euh, ci panel bi nag man message bi ma bëggoon aussi passé mooy euh, investisseurs nañu xam ni investir Sénégal mooy jël lépp luy opportunité yu am ci àdduna bi li tax nag ñu wax ko mooy ñett mbir bu ci njëkk mooy Sénégal position stratégique la am boo xamante ne euh, sorewul ak euh, marché yi gën a am solo yi Sénégal ak Europe sorewul temps bu gàtt ngay def Sénégal ak Asie sorewul temps bu gàtt ngay def Sénégal ak Amérique sorewul temps bu gàtt ngay def donc entreprise bu fa nekk dina mën a exporter facilement ñaareel région bi moom mooy xam nañ ni Sénégal dafa am stabilité politique te loolu dafa am solo ci investisseur yi non seulement am na stabilité ndax am nañu démocratie bu bu dëgër waaye tamit bu ngeen xoolee avancé yi ñu am ci wàllum doing business tax na ba Sénégal mu nekk tamit euh, dëkk bu attractif pour investisseurs yi ñetteel région bi nag moom mooy Sénégal dafa ubbeeku gis nañ ni euh, tey jii ñëpp a ngi wax ci zone de libre échange continental africaine nga xamante ne marché bi gën a yaatu la ci àdduna bi euh, te Sénégal bokk na ci ñi ko pousse tey jii bu ñu yegsee fii Sénégal def béy na ci waaram bu baax a baax a baax te tey jii bu investisseur ñëwee installé wu Sénégal donc dina mën a jaay ci Afrique bi yëpp rawatina aussi lépp li nga xamante ne mooy accès préférentiel yi Sénégal am ci Europe ci Asie dana ci mën a bénéficier donc ku ñëw investir Sénégal da ngay daal ci loolu yëpp donc loolu la ñu leen bëggoon a passé comme message di yaakaar bu baax a baax ni dinañ am ay résultats yi ñu soxla mu doon njëriñ suñuy entreprise suñu économie suñu population